li ñu waxoon ne safu na sëñ bi loolu la tere. bi hmm. Sadio Mané dugalee dernière penalty bi daal. waaw doon neexut a muñ baag Mbàkke nag. waaw déggoo déggoo li la comme comme ni Ricis mel ni Ricis Medina bi mel. Hmm. noonu la Touba mel. Hmm. waaw fii moom gars yi manifester nan mag ndaw. góor man li ma si gën a yéem gën a yéem sax mooy dama gis oto yi oto yi nga xam ne amuñ couverture camion yooyu nga xam ne dañuy yeb ciment. <laughs> camion yi yëpp ciment laa la wax de ak sareet yi camion yi yëpp ciment dem ci yéeg ba fees yaa ngi dégg yaa ngi dégg maa ngi si maa ngi si kaw tali bi ban ban ban ban nga féete fi ñu toll man maa ngi Daaru Marnaan ci résidence Xaalim Rasoul bi en face Daaru boori forage ba Satodo ba non maa ngi ci kaw tali bi résidence Xaalim Rasoul ah waaw waaw waaw ga ancien garage Dakar waaw waaw dëgg la